wàllum assainissement bi déjà bu ñu déggee benn projet bu ñu naan projet ONAS la donc pour benn euh, station d'épuration et de traitement des eaux de Touba de Touba Touba. de Touba waaw dañu bëgg mu leer de Touba. kon projet projet Touba la. mais dañ ne ñoom site bi nga xamante ni moom mën a fu la projet bi war a mën a dem Mbàkke la nekk. kon il fallait que ñu am terrain au niveau de Mbàkke si la leen mairie bi joxee terrain mais si biir loolu dañ ne si biir projet bi Touba daf ci am 1600 branchements. Mbacké am ci cent branchement ak ay édicules publics édicules yi moom mooy ay toilettes yoo xamante ni dañ fay dem ndox tuur ndox wala tuur dugub ñu def ko ci dëkk bi donc Touba am ci Mbacké am ci loolu la ñu naan équité bi ñoom mais 1600 soo xoolee yanu na maana parce que Touba du Mbacké moo gën a rëy Mbacké mais le problème nekkul foofu noonu moom mooy le problème mooy projet bii ñu naan euh, station d'épuration bi nekk fii nii ci Mbacké dafa jur problème yu bari parce que c'est à ciel euh, ouvert la dafa ubbeeku ci kaw déjà loolu nag askan bi nga xam ne ñoo dëkk aux alentours impact bi leen loolu war a mën a jural après feek vingt ans dix ans quinze ans ci kanam na ONAS jël ay responsable état du Sénégal na jël ay responsabilités concernant ça. impact parce que ñoom bu ñu def projet bi waroon na am impact environnemental dafay am mu waroon am ay audience dafa am audience boo xam ne audience publique la am audience boo audience privée la privé bi c'est eux avec les autorités beneen bi public bi mooy ñoom waa ONAS ak seeni techniciens ak askan bi. te loolu respecté wuñ ko te pourtant ñun dox nañ ci ba sonn pour ñu def ko ñu digal ñu fi ba nañu danañ ñu def ci oto bus le maire moom moo ko wax ak les techniciens de ONAS pour yóbbu ñu fi sit bi am fi ñu ko defoon ñoom pour expérience ñu dem ñu xool ko ñu visité ko. amul dara amu ci da loolu début projet bi la ba léegi dara amu ci. kon loolu dafa doy waar beneen bi. projet bi dafa lëndëm a lëndëm parce que daf ñu mayaale sax suñu bas sa dafa ñu mayaale bunt. ci côté boobu noonu sëñ Bass Abdou Khadre parce que yaakaar naa ci discours am li mu doon wax loolu lu leer la parce que wax aussi tamit bala nga ci argumenté war nga ko jàngat jàngataat ko sëñ Bass yëg na projet bi comme ñun ni ñu ko yëgee keneen keneen yëg ko mais après projet bi projet bi buy daw ci biir projet bi li ci xew la nit ñi xamul kilifa gi moom moo ko xamul asamaa ak ñun ñi ñun Mbàkke xamuñu dara ci projet centre d'épuration bii di def nii Mbàkke parce que dañu ñu daf ci am 600 branchement 600 branchement yooyu kan la ak ñan la léegi nag ñun jëm nañu woo j'ai contacté aussi tam tam ONAS contacté naa foofu la secrétaire euh, du du directeur donc pour am audience avec le directeur pour moom aussi mu expliquer ñu leeralal ñu pour ñu xam quest sa qui se passe parce que ñun def nañ ci ay jéego yu bari dañu xamul jéego yooyu est-ce que moom kilifa gi yëg na ko parce que fii Sénégal gars yi dañuy ñëw naan la kilifa gi ma yónni fekk ne ay waxi neen la dañu ñëw rek la tuur la lëndam dem seen yoon bu ko defee loolu mooy indi difficulté autre kilifa yi ba sëñ bas bi kilifa yi loolu moom moo ko indil problème sur ça sur ce projet parce que daf ci waroon a am lu leer du début à la fin mais bu fekkee da nga xam ci début bi te fin bi xamoo comprendre quelque chose nit ñi bu ñëwee da nga naa mën xamu ci dara donc loolu moom moo jur coow li parce que lii dañu war a leeralal beneen bi mooy que ne ndoxu Mbàkke bi ñu wax waa Sen'Eau nee nañ foofu moo gën a baax pour ñu mën fa déverger kii bi rejet bi biy jógee ci ndoxu forage Mbàkke bi nee nañ ñoom mooy l'idéal kon ñun ça tombe à pic yi ñu ñuy bëgg a rey xamuñu kan la nañ ko jëlal ñu defal ñu ko ci forage bi foofu noonu ñu montel ñu ko pour mu dem foofu noonu ñu déverser foofu noonu site bi donc yaakaar naa loolu moom moo si gën a ëpp solo